wa azka taslimi ala xayri man taallama wa afdali man allama wal qaa'ili xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu wa ala aalihi wa saxaabatihi wa taabiciina lahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh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 soppee alquran yi jàngalekati alquran yi jàngkati alquran yi jàngalukati alquran yi soppee alquran ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu aq di leen ndokkeel di leen massawu ci coono yi gën toggoo ngir wuy si wooteeg suñ borom suñ borom ci boppam moo waxoon ne yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum yéen ñi nga xam ne gëm ngeen na ngeen wuy ci ngir yàlla ak ngir yonent bi buñ leen wooye woote boo xam ne day dundal xol insha allahu woote bii di woote bi alquran daawatun lima yuxyi woote la boo xam ne day dundal xol waaye it wuy si di ngeen wuy si doon na istijaabatan lillahi wa li rasul te mooy wuy si ngeen ngir yàlla ak bi noonu kon def ngeen ndigalam li mu leen ci dikk ci aw yiw ak ngërëm ak njëggal yàlla leen ko defal ci barkeb téere bi waxtaan wi nag du waaye ñu ngi koy tënk ci aaya bii nga xam ne moom lañu jàng léegi muy aaya boo xam ne jullit bu nekk war na koo bàyyi xel war na koo settantal moom laa la déey moom laa wàcc ci yow muy alquran kon mooy ci mu dëgër ne ko innaka ala siratin mustaqim te nga xam ne dog nga xam wu jub bi nga xam ne moo jëm si fi man moo jëm si fi sama ngërëm moo jëm si fi sama aljana kon ku téye ci alquran ba mu dëgër na sam xel dal na yow day dog nga yoon wa ku doon laajte ana yoon wa bu fekkee ne jàpp nga ci téere bi ba mu dëgër na sam xel dal te xam ne dog nga yoon wa te ku xas ba dog yoon wa su boobaa duutoo taxaw duutoo gestu da ngay wéy rek kon ku jàpp ci alxuraan te jàpp ci bu mu dëgër su boobaa wéyul bul yox yoxi bul ragal bul gestu bul taxaw ndax yow dox nga ni fa ñëpp yi seet te mooy as-siraatul mustaqim ne ko wa innahu moom téere bii la zikru laka jàppal yow Muhammad yaa ko tax a jóg la zikru laka yaa ko tax a jóg jàppal mel na dafa ne gees na ko wari qawmika ak sa xeet wi kenn desit nañu jàpp ndax ñoo ko tax a jóg ci ne wa sawfa tusalun des na leen ko laaj bi mu ne ko la zikru laka jàppal yaa ko tax a jóg loolu tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na fukki at ak ñett ci Makka di woote ci lislaam di woote ci wiital yàlla di woo nit ñi ngir ñu nekk ca daara ja ngir ñu jàpp alxuraan coono bu nekk fekk na ko fa xëbal nañ ko fa xupp nañ ko fa dig nañ ko ay xëpp waaye taxul mu nangoo noppi taxul mu nangoo fay taalu bi ndax borom bi dana ko jàppal ba mu dëgg mu nekk ca lu fukki at ak ñett ci mag bàyyi koo fa dem Madina am fa fukki at lépp di coono lépp di aw metti yéefar yi wër ko nekk wër ko fu nekk ak bokkam yi di ko bundu xataan di ko xëbal ak di ko nax naxal ngir téere bii na ko teg ci suuf njàngale mii na dog taal bii na ko fay waaye mu fa bopp bëtam teg ko ci wasawfa tusaluun dees na leen ko laaj mu nekk ca noona ñaar fukki at ak ñett keroog ba muy bàyyi koo àddina ba muy bëgg a bàyyi koo àddina dafa woo jullit ñëpp ñu daje ca Makka ànd ak moom ak ajum bu mujj googee ñu daje ak moom ca Arafa mu xutba leen xutbaam bu yaatu boobee ba boobee nga xam ne lu mu jàngale woon ci fukki at ak ñett tënk na ko ci bu tënkee ba mu yàgg mu xool saxaaba ya fa teew ñu nangami junniy nit ñu bëgg a boor fa kanamam di ko déglu mu ne leen ala hal ballaxt ndax jotal naa li ma yàlla yónni woon ñoom ñëpp mu ci genn kàddu ne ko ballaxta risaala wa addayta al amaana wa nasaxta al umma su ne ndax jootal naa ñoom ñëpp ñu àddoondoo di genn kàddu ne ko aha kay yow de jotal nga li la yàlla yónni woon yow de jooxal nga kóllëre gi sa borom joxoon yow de laa biire nga saw xel mu wéyaat di tënk di tënk ba mu yàgg mu ne teg xoolaat leen ne leen ala hal ballaqtu ndax jotal naa ñu yuuxoondoo ne ko aha kay ballaqta risala wa addayta al amaana wa nasaxta al yow day jooxal nga jotal nga leetar ba jooxal nga kóllëre sa borom ci jaam yi yow day laabiire nga xel bi mu def ka juróom-ñaari yoon saa bu wax leen lii ñu tontu ko lii ba muy juróom-ñaari yoon mu fab mu tiim ci asamaan ne borom bi allahuma fashhad sama borom seedeel ne ñii wax ne jotal na daal di wax ne ala fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib ku fi teew tey jii na jottali diine ji na jottali téere bii ñi fi teew kon wali xaw kon le zikru laka jàppal yaa ko tax a jóg def na mission ba dundam nga jeex keroog ba mu fi bàyyi ko mu ne saxaaba yi fal yuballigh ash-shahidu minkum ku fi teew ku nekk ku ci jot ku nekk na ko jottali ku fi teew saxaaba bu nekk loola nga dëkk ci sa noppi dëkkul sam xel dëkkul sam xol lii moo tax gannaawam ñoom ñëpp ñu fëx ñii yëg ci montagne yi yëg ci montagne yi moo tax alxuraan dem ba ci réewi Asie yi dem ba Japon dem ba Chine ak feneen ñenn ñi xuus ci géej gi xuus ci géej gi lii moo tax alxuraan dem ba Amérique dem Europe dem feneen ñenn ñi traversé beej bi ak désert bi lii moo tax alxuraan ak si fii bi moom ndax ñoom xamoon nañ ne wali xaw mi que bi alxuraan waxee ne ko jàppal yaa ko tax a jóg mission jeex na wali xaw mi ak sa xeet wi nañ jàpp xam nañ kon seen mission dikk na kon alxuraan moomu bi mu agsee fii fi nun fekk fi ay jàmbaar yoo xam ne ñoom it la rasulullahi déggoon ca wa sawfa tusalun dees na leen ko laaj la saxaaba ya déggoon ca des na leen ko laaj ñoom it ñu teg ko seen kanam di ci liggéey di ci liggéey ba ñun ñi ñu yot ci bokk yi alxuraan moomu nag kon ñuy wax ne coow naa ko fi indi waaye nof lay indiwu ko fi waaye coow naa ko fi bàyyi nof lay du ko fi ba waaye coow naa koy jàllale ci kanam damay faral di wax ay rangoo ko fi indi aw ñaq ko fi indi deret moo ko fi indi waaye it loolaa koy sàmm loola it moo ko yóbbu fa kanam fa kanam te it loolu bu ëllëgee moom lañ leen di laaj wa sawfa tusaluun kenn ku nekk responsable nga ci alxuraan ji nga am ci taxawaay ma del si wax nag ne bokk yi alxuraan mooy lan alxuraan de suñ borom da koo fonk am na xalis boo xam ne abdullah ibn amr moo ko solo jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne alquranu ahabu ila allah min alsamawati wal ardi wa ma fihin alquran ci bopp moom la yàlla gën a sopp ci asamaan yi juróom-ñaar moom la gën a ci suuf yi juróom-ñaar ak li ci seen diggante lépp alquran la gën a sopp kon suñu borom lim gën a sopp ñun moom la ñu jox lim gën a sopp la jox alxuraan moomu du bind yi fum yàlla alxuraan melaw suñu boroom la fu suñ borom nekk ci tedd ak ci sell ak ci xuut ak ci leer ak ci barke alxuraan ma nga ndax aw melow fa suñ borom nekk nga xam ne amutub tàmbali amutub yem alxuraan ci boppam amutub tàmbali amutub yem du mbi lii fam suñ borom waaye aw melokaan ma aw waxama te buur fu mu nekkul bu fa kàddoom nekkee tey ma nga fa kon alxuraan mooy suñu borom fii ci kaw suuf damay faral di wax ne képp koo xam ne soo déggoon ñu ne yàlla nga barab sàngam nga war ci oto ray yéeg ci oto yi war ci avion yi dox ci suuf si ngir àgg fa ngir wan yàlla sa pas-pas foo dégg alxuraan muy riir ñu ko fay riiral jàppal sa borom ma nga foofee jàdd fa wadde fa sa pas-pas ndax mooy mooy suñu borom ci kaw suuf da koo fonk ba nga xam ne ba mu koy wàcce déglul ba mu koy wàcce da da koo fonk ba nga xam ne goxi asamaan yi nga xam ne fala kàddoom di jaar fala ay ndawam di jaar suñ borom su masal addu di wax ab yonent jinn yi mën nañ cay for di ca sàcc ay kàddu di ko yokk jox ko gisaane kat yi ñu koy wax seeni client waaye alxuraan moom ba ko suñu borom di wàcc ci kaw suuf fonkeel ga tax dafa ñëpp bunti asamaan yi nettoyé ko ba nga xam ne dafa laab ba xam ne lenn lu ciy for dara di ko yóbbu laata muy àgg ci xolu rasulullahi amut kooku suñ borom ci boppam moo ko nettali jinne yi ñoo wax ne inna kunna naqudu minha maqaada lis-sam fa man yastami al-aana yajid lahu shihaaban rasadan ñoo wax ne nun day suñ borom su masaan di wax daañ ci for dara waaye dañ gis moy kàddu gii di alxuraan moom ba mu tàmbalee wàcc ba léegi fuñ mën a toog bëgg a for dara sàcc dara balaa agsi suñ borom ay juum yuy takk yow xam ne moo leen di lakk taq leen ba foofu yëpp leer foofu yëpp sa wécc ba kàddu gu mën a àgg ci xalbu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te mbindiif du ci jot nga xam ne mbindiif mu ci jot yaa ngaa ca jote bu bàyyi koo ci alqalbul ma al baytul maamuur bàyyi ko ci xolam bu set bu sell boobee mooy yoon ba nga xam ne kese ci li mbindiif mën a jote lépp ngir fonk téere bi bi mu ñëwee suuf mu tànnal ko zamaan jamono boo xam ne moo gën a tedd ci jamono yi wàcce ko ci te mooy fukki weer ñaar Eh, ramadan di weeru koor mooy weer wi gën a tedd ci weer yi suñ borom tànn weer woowu def ko muy weeru alquran karim weer woowu gudd guddi gi ci gën a tedd muy leetul xadr suñ borom tànn ko muy guddi googu nga xam na ci la commencé wàcc alquran karim kon da koo tànnal zamaan jamono bi gën a tedd muy ramadan weeru koor ak leetul xadr inna anzalnaahu fi leetul xadr wa ma adraka ما ليلة القدر ليلة القدر خير من alfi mu wàññi ko tànnal ko pakk suuf bi gën a làpp ci pakki suuf yi te muy makkatal mukarrama te muy barab ba nga xam ne fa la kaaba nga nekk de baytulal xaram mu tànn barab boobee def ko muy barab bi nga xam ne fi la kàddoom di alquran di jëkk wàcc te muy bakk bi gën a sell ci pakki suuf mu tànnal ko ndaw loo xam ne mooy moom lay jox ab yonentam muy Seydina Jibril alayhi salaam di amiinu waxi sama ki nga xam ne moom la suñu borom wóolu ci mépp ndéy moo xam ne mi ngi koy di ab jaamam di ab yonentam kon mu tànnal ko ndaw waññi ko it koy wàcc ci kaw suuf mu wàcce ko ci koo xam ne muy gën a xam yàlla ci jaam yi ki gën a ragal yàlla ci jaam yi ki gën a nangoo ja jaamu yàlla ci jaam yi ki gën ci jaam muy sallallahu alayhi wa sallam nazla bihi ruuxul aminu ala qalbi kon gis nga tànnal na ko jaaruwaay buy wàcc bu ñu ñàkk tànnal na ko jamono bu mu koy wàcc muy jamono bu tedd tànnal na ko barab bu mu ko jëkk wàcc muy kaaba al musharrafa tànnal na ko ndaw lu sell lu wér lu wóor ci ab yonentam mu jibril mu tànnal ko jaamam bu tedd bu sell muy sallallahu alayhi wa sallam lépp ngir won na moo suñ boroom ni fenk ni fonk téere bi kon suñ boroom li mu gën a bëgg li mu gën a tëral la nga xam ne moom moo koy misaal moom suñ borom ci kaw suuf moom la jox am na ci boroom xam-xam yu bari wax ne e jàng alxuraan ci boppam teraanga la joo xam ne suñ borom da koo terale doomu aadama xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeet yi fi jiitu woon ne woon nañu siiw am teraanga ju mel nii waaye borom bi ci ngëneelam ak yërmandeem mbindeefam yu bari ci géej ci jëri ji mu jëggat leen ñoom ñëpp kenn par kenn di xool ko ko soob ba fekk xeetu muhammad nun nii mun nañu bokk teraanga ju mag ji nga xam ne mooy akramu karamatin mooy akbaru karamatin akbaru ni'ma mooy gën jaa màgg teraanga gën jaa màgg xéewal mu seppi nu ci bind yi fam yu bari jox na ko moo tax may faral di wax ne bokk yi ana nun man xëy mu neex lañ xëyal yàlla suñ borom wala man ngont lu neex lañ ko gontal ci jaamu ba mu seppi nu nun jox ñu lii nga xam ne mooy ngën ji teraangal alquran karim déedéet xëy luñ ko menn xëy gont luñ ko menn ngont xanaa kay yaxtas bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadl azim dina seet ko ko neex mu seppi la ci jaamam yi jox la alquran alkarim waaye lay tax ñu mérité ko mooy rekk nañu xam kum dëyëb lim nu jox nañu xam dëyub ba mu weesoo ñëpp jox nu ko nañu xam lu tax mu jox nu ko te mooy ñu téye ko ci suñu bëti xel bëti xef téye ko suñu bëti xol téye koo ko suñu ay cër di ko jàng di ko sàmm ba xëy yeggale ko fa nga xam ne moom la nam lii rek mooy tax ñu mérité ko teyit bokkul ci ndam bokkul ci teraanga nga mujje posama réer alquran mii suñu boroom fonk ko fonkel doo xam ne afdalu ibadati ummati qiraatul quran yonent bi moom la wax lu gën li sama xeet di jaamoo yàlla mooy jàng alquran karim te muy téere boo xam ne booy jàng yaa ngi jaamu yàlla boo koy déglu yaa ngi jaamu yàlla soo koy bind yaa ngi jaamu yàlla soo koy xool ngir màggal ko yaa ngi jaamu yàlla boo ciy xalaat yaa ngi jaamu yàlla boo koy jàngale yaa ngi jaamu yàlla téere bu téere jaamu bu riche la moo tax gis nga zikr la yonent bi wax ne man qaraa xarfan min kitaabillah fa lahu bihi xasana man qaraa xarfan min kitaabillah fa lahu bihi xasana koo xam ne jàng nga wenn xaraf ci téereb suñ borom bi nga am ci xaraf yi aw yiw te yiw woo ci am sa borom ful ko ba mu nekk fukki yiw yént bi wax ne waxuma alif laam miim xaraf la de dama ne alif ci boppam xaraf la laam ci boppam xaraf la miim ci boppam xaraf la nga xam ne kon soo nee alif laam miim am nga fanweeri yiw damay faral di wax ne koo xam ne àggoon nga ci sat ñàkk a xereñ mënuloo jàng alxuraan baqara ba naasi waaye li nga mën muy ubbi ko di wax alif laam miim baasin miim na nga xam ne yaa ngi jaamu yàlla yaa ngi am aw yiw bu rëy kon bokk yi suñu borom lii la ñu jox bokk yi li mu wax ne na ngeen ko jàpp te nga xam ne wasaw ko laaj rasulullah sallallahu ak saxaabaam yi ak ñi ko toppoon ñi leen toppoon boroom xam-xam yarkat yi ba fi tey jii képp ku ñëw sonn ci alxuraan sonn ci diine baatub sawfa tusaluun des na la ko laaj moo tax nga sonn ci teewlu nga moos bis péncum yàlla sa borom mu taxaw la laaj la na nga defab téere bii kenn ku nekk sa dund war ngaa sàmm laaj boobu bis bu la ko sa borom laajee ana loo koy tontu tont loo xam ne dana la fa may la nga bëgg tont loo xam ne dana la musal la nga ram bokk yi kenn ku nekk ci ñun am na ci responsabilité ci alxuraanu karim gis nga alxuraan ñu koy jàng ci làmmiñ yi di ko jàng ci làmmiñ yi di ko wattu ci dënn yi di ko bind ci këyit yi di ko dégg ci xol yi di ko gëm di ko dégg ci xel yi di ko gëm ci xol yi di ko jëfandiku ci cër yi di ko wooteel di ko défendre kooku jullit bu nekk yow la war kenn waru koo bàyyi kel mag du ko bàyyeek ndaw safaan ba jigéen du ko bàyyi jigéen ak safaan ba damay wax ne Muhammad ma ca Touba ak Pitre ma ca Amérique ñoo bokk yem ci téere bii kenn ku nekk sa responsabilité benn kii am na tawfiq téye kii ñàkk tawfiq bàyyi waaye ku nekk pencum suñu borom wa sawfa tusaluun des na laaj moos nanga nga def ak téere bii kon kenn ku nekk kenn sañu koo bàyyi kenn. alxuraan fii fi réew mi nag bokk yi lu rëy la fi dafa am benn historien bindkatu taarix bu ñuy wax Arnold Toynbee dafay wax ne kullul xadaaraat intalaqat fi zillil maabid mboolem civilisation yi ci àddina bi yëpp ñu ngi départ ci suufu barabi jaamukaay yàlla yi bi maanaa diine ci boppam moo jur civilisation ma wax ne fii fi Sénégal إن الحضارة السنغالية انطلقت في ظل المدارس القرآنية fii fi réewum Sénégal civilisation sénégalaise bi nga xam ne moom la ñuy puugarewoo te jar nett li ci ay xam-xam ak i valeur ak i mbaax civilisation boobu mi ngi départ ci ron keppaari daara yi damay wax ne taarixu Sénégal ci boppam daa daa ju ñuul ji di coos ka ak xalim ak bant gi moo bind taarixu Sénégal la ca jar puukare woo la ca jar damoo la ca jar nett ji kooku daaraa ko bind damay wax ne xalima daara saa bu masee ne kekk taxaw civilisation sénégalaise ci boppam dal di taxaw di xaar daara bëgg del si ci boppam fii senegal Sénégal civilisation la feeñ ni ci jikkoy nit ñi ci seen làkk yi feeñ ci seen relation feeñ ci seen bépp melokaanu dund waaye lislaamu civilisation boobu di lislaam alquran ci boppam mooy ak ruuxam alquran ci boppam mooy ak ruuxam moo tax bu ñu dee wax daara bismillah kon bu ñu wax daara di wax ne am nay jafe-jafe ni ko thème généralu congrès bi na nañu xam ne li may wax ne xajaru zawiyatin fi binaa xadaarati Sénégal xajaru zawiyatin ihtazat li daara doon ci biir réew ci tabax jikko yi tabax nit ñi tabax xam-xam yi tabax bennook réew mi tabax jàmm ji tabax économique bi tabax njàng mu jëkk bi fi nekkoon nga xam ne li euh, arafu alxuraan yi moo sàmm suñu làkk yi moo ko développé làkk yi ba mu ba ba mu moo tax ñu bind ko di bind suñu taarix nga xam ne arafu alxuraan moo réew mi moo sauvé moo sauvé démbam buñ dee wax ne daara am na problème kon nañ jàpp ne kenoo kenoo civilisation bi ci boppam yëngu na te ngay daara damay wax ne njàngum alxuraan ci boppam bokk yi daara ci boppam moo ñu andiloon ay boroomi xam-xam yoo xam ne ay cadre yoo xam ne mel nañ ne seeni moroom ca Maroc ak ca nitu daara yi ñoo ñi nga xam ñoo fi def ay combattant xeex ak noon yi ba réew mi di leen puukare woon saa nekk nit daara ñoo fi tabax ay nguur yoo xam ne Sénégal soo amee histoire ci wàllu politique ak état ñooñu lay tudd ñooñu lay puukare woon ñoo fi tabax ay daara yu mag ay université ñoo fi tabax ay jàkka ñoo fi tabax ay juma ñoo fi tabax ay dëkk ñoo fi dund la ay suuf yu dee ñoo weesaara islam bépp fu nekk Touba misaal la ci dëkk boo xam ne daaraa ko defar kon civilisation bi ñuy wax Sénégal di ko puukarewoo ci Nations Unies nag fan fu nekk nañ xam ne damaa wax ne daara ci boppam mooy ki nga xam ne moom moo ko liggéey moo ko tëgg moo tax bu ñu wax problème su boobaa buur war naa jóg def participation ngir problème am jeex waaye xeetu lislaam bi ñëpp ku nekk war naa taxaw kilifa diine war naa taxaw borom wërsëg war naa taxaw kenn ku nekk boo taxawee na nga xam su boobaa yaa ngi ci jàpp ca kenn civilisation bu yëngu su boobaa taxaw ngir sampat ko te loolu dara gën koy yee di ko tàmbali ci diine ak ci pas yi ak ci yar yi ak ci lépp daara ci boppam mbokk yi e jamono bu nekk ak la xew daara nag ihtazat waaye mais sa wax ihtazat warabat ndax yëngu na waaye coow li topp daara tey ku nekk xamal li ko waral luy dund lu nekk war nga niru niru luy dund luy dund lu nekk des na wax ci yow ku ñu waxatul ci yow rek suul nañ la te daara sax wax ji jigadiwu ko ndax gis nañ tey nga tasaa tasaaroo fenn fu nekk ci réew mi mbooloo mi ci jàng mësta am ci benn jamono mbooloo mi koy waxtu moom alxuraan mësta am ci benn jamono teewul coow topp kon jigadiwu ko waaye bokk ma wax rek ne bu fekkee nañ wax civilisation ci réew mi di wax culture aada ak cosaan ci réew mi damay faral di wax ne jàng alxuraan mooy cosaan li gën a sax ci xolu Sénégal ci réew mi bu di wax ne kasak dafay sax di wax ne taaxuraan dafay sax di wax ne lépp dafay sax di wax ne fecc way dafay sax fu ñu tuddee culture sénégalaise tudd yooyu moo wax ne jàng alxuraan ci boppam mooy li gën a sax ci yooyu yëpp ci xolu Sénégalais yi xoolal jàng alxuraan mooy loo xam ne sénégalais fu mu mën a toll di ko def dama wax ne ñeenti sénégalais yoo gis ñett ña mas nañoo jaar ci njàngum alxuraan. mën nañ caa rawante nag waaye ñett ñeent yoo gis ñett ñi mas nañoo jaar ci daara ak fu ñu jàng alquran karim damay wax ne sénégalais boo gis xolam bëgg man alquran ma nga ca bëgg njabootam man alquran ma nga ca jàng alquran mooy loo xam ne sénégalais ab sénégalais bu kontaanee am mbégte moom lay def day boo kaamil bu amee naqar di jàngalu kaamil su fekkee dafa am yaakaar ci mbir bëgg mu sotti mu jàngalu alquran bu amee lum ragal day jàngalu alxuraan buy sëñ ci kër ku bees day jàngalu alxuraan su toogee toog bëgg a ñaanal way faatu yi day jàngal alxuraan su bëggee ñaanal suñu borom defal ko ubbi ko day jàngal alxuraan karim alxuraan mooy li gën a sax ci xolub sénégalais mooy li gën a sax ci conscience sénégalaise nit ko jàng di wàcc damay wax ne sénégalais jàng alxuraan pour moom mooy li mën la ñàkk sénégalais bu jàngul tubaab génne ko da nga sénégalais bu jàngul xam-xamu fiq ak diine sax génne wu ko waaye bu jàngul alxuraan saa su nekk yaa ngi yëg ne yow mi am na la manqué moo tax nga sénégalais fii ni saa bu mënee alxuraan ñu baree bari li tax amuñu xam-xam ku mën alxuraan da da la regg doylu la sëkk am na ñoo xam ne alxuraan kese seen jàngu yàlla boolewuñ ci leneen kon lii lu gën a sax ci xeet wi la lu gën a sax ci xol ci ci ci ci xolu xeet bi la di ko jàng di ko wàcc léeg-léeg def ay kenn kenn léegi ñu def mbooloo def mbooloo yoo xam daañu toog fi benn bara jàng fa nangami junniy kaamil ñi di ko jàng guddi di ko jàng bëccëg di ko naafila weer ko am na ñoo xam moom rek lay naafila fu mel ne Tuuba bii ay rajo yi di ko teg ñu di ko bind ci ka kaamil yi di di di di ko wecc ko nga xam ne bu njëlee foo dox ci réew mi yàlla di kaddu ko alxuraan rajo yi jàkk yi di ko teg tey doo dégg mukk ni réew mi manifester wala ñu wane si naqar wax ni ñii dañuy yàq seen nelaw damay wax ne bokk yi culture séné bi gën a sax ci conscience sénégalaise gën a sax cim xolam gën a sax cim xelam moo jàng alquran moo tax may wax dañuy wax droit à la culture te mooy maanaam kenn ku nekk am nga droit ci ñu jàppale la ba sa culture nga dundal ko droit à l'éducation kenn ku nekk am nga droit ba li nga xam ne mooy sa mooy sa gëm ak sa mbaax ñu jàngal la ko yar yar la ci kooku damay wax ne alxuraan ci bopp li mooy li nga xam ne assemblée nationale mënoon naa wote waroon naa mën a wote loi def droit ci chaque sénégalais am na droit ci ñu jàngal ko alxuraan karim parce que mooy li nga xam ne bis bu nekk ab sénégalais consommé production damay wax sénégalais du xëy mukk jant fenk ba jant so te jëfandikoo wulu daaray liggéey ma nga tàmbalee ak ñoom ba nga xam ne ngay labat soxna sa daara ànd ak moom foofa ba ba soxna si ñëw soxna si ëmb mu wuti daara soxna si jur mu wuti daara ngir toqantal mu am juróom-ñaari fan mu seeti daara mu jóge ci di feral mu seeti daara mu jóge fa bëgg xam xaraf yi seeti daara bis bu nekk mu julli saa bu julli bu ne seeti daara bis bu faatoo daaraa koy sang moo koy sang moo koy miraas bis bu ñëpp jeexee wañu ko seen mbir jeex ak kooka daara mooy des di ko ñaanal ba faw moo tax li wax minal mahdi ila lahd fa xale fi fi góor gi waaju juddoo ba fa may faatoo daara lay àndi musa ko moom damay wax ne min qablil mahdi ila ma baada lahdi bi maanaa ba ñu labat soxna sa daara la àndaloon ba bañ ko suulee ñëpp dem toogi dem seen yitte daara fa des di ko jàngale ko ñaanal daara mii kon képp koy judd tey jëfandikoo production daara ci mii réew war ngaa war maal daara war nga koo sàmm war nga koo dundal ndax njëriñ lépp ci la nekk daara mooy këggu suñu borom gi nga xam ne fi lay wattoo bi téere bi mooy nuur mooy ak leer mooy hudan muy ak njub mooy rahma mooy ak yërmaade mooy bushra mooy mbégte téere bi ci boppam borom nee na mubaarak ak am na barke ngi ci nee na nuur la nee na ali hakim lu kawe la lu xereñ la wépp melokaanu mat boo xam ne mi ngi ci suñu borom suñu borom jox na ko alquran al karim tax a géewu tax tax ñoo woote muy lii bokk yi lii jar na woote lii jar na wujj lii jar na géew lii jar na wax ci kaw waaye daara moom yi na nga xam suñ lépp ci la nekk am nay jafe-jafe e jafe-jafe yi dama koy bëmbëstal incha allahu buñ demee ba àgg ca li ñuy wax al bayaanu xitam yi te mooy rés déclaration bi nga xam ne résolution yi nga dañ ko jàngat fii bokk yëpp dëkk réew mi dëkk ñëpp dëkk dana ca bokk loo xam ne ay solution la ci ay saafara la ci jafe-jafe daara waaye mbokk yi daara day am na jafe-jafe boo xam ne jafe-jafe bu nit la mënta ñàkk la bi maanaam dund ko doy te ma del si wax ne day bokk yi daara ci boppam ñi ci nekk xeet wi lañu ci ñàkkal xeet wi lañ ci nekkal bu ëllëgee buñ ci jëndee nekkal xeet bi bi maanaam xeet bi ñu ñëpp muy état bi muy kilifa diine yi muy borom wërsëg yi mooy jullit ñëpp war nañoo taxaw ñi nga xam ne ñu ngi ci daara yi ñëpp taxaw ba ñu am dund bu baax am dëkkuwaay bu baax am cet gu baax bu ñu woppee mën a am paj mu baax ndax yàlla ñu mën a jàng bu baax askan yu di def loolu ci daara yi ngir lebal leen ko askan bi ni leen lebal ni leen buur lebal ni leen kilifa diine lebal ni leen borom wërsëg lebal ni leen la ñëpp lebal ngir ñu dund dund bu baax ngir ñu am dëkkuwaay bu baax ngir ñu am cet ak fegaru fagadi ko bu baax ndax ñu am wér gu yaram bu baax ndax ñu jàng bu baax bu fekkee taxaw nañu ba garanti loolu way da borom da waa daara bu ëllëgee bu ñu génnee nekk ci service bu askan bi di leen liggéeyal te askan wi duñ leen fay dara bi maanaam bu ëllëgee ñooy nodd jumaa yi ak jàkka yi ñooy xutba ci jumaa yi ak jàkka yi ñooy jiite jàkka yi ak jumaa yi ñooy takk sëy yi ñooy feral gone yi ñooy tudd doom yi ñooy jullee néew yi ñooy miiras alal yi ñooy defar bokk gi ñooy leeral diine ji lii lépp askan wi mënu koo ñàkk da koo jëfandikoo benn bu nekk te askan wi du fay ñi ko jëf dara kon bañ nekkee ni fàggu xam-xam bi na askan wépp taxaw def ci ñoom te jàpp ci ñoom bu ëllëg gratuite na ko def gratuite te xam ne da koy lebal benn bu ëllëgee ñii fay ko ñaar ndax daañu wañu ko wat li nga xam ne mënu koo ñàkk damay wax ne ab sénégalais ci boppam li nga xam ne mën nga ñàkk ceeb ak ceeb ak diw mënu koo ñàkk lekk ci bis mburug sow mënu koo ñàkk jëfandikoo ci bis mënta xëy soo ba jant soo te jëfandikoo wóolu daara liggéey kon rek ab lebal la kon askan bi di état bi di kilifay diine yi di jullit ñi di def ko ci yiw yi ne ñëpp nañ jàpp ci nañ jàpp ci daara te suqali ko buñ ko suqalikoo xam-xam suqali ko diine suqali ko ay jikko suqali ko Sénégal ci boppam jàmm gi suqali ko dal gi suqali ko bu ëllëgee ñii incha allahu buñ taxawee taxawaay lépp dina ma dina rafet kon daara am na problème yoo xam ne mushkilaat insaniya la daara am na problème mu pédagogique bi maanaam ñi ci liggéey. ni nga xam ne fànn bu nekk ña ca nekk waras na leen di dooleel leen yokk xam-xam ak xereñ daara ci boppam et manqué na lu ko yokk xereñ ak xam-xam ndax li ñuy wax formation continue nga xam ñi jàng tubaab saa su ne ñu leen koy defal seen xam-xam di yokk seen man-man di yokk seen xereñ di yokk seen métier daara soxla na moos lu ko jàppale ba nga xam ne ñi ci nekk seen xam-xam dana yokk seen mën-mën ci saytu ko it na yokk seen mën-mën ci saytu daara na yokk kooku lim mooy ay formation pédagogique yoo xam ne formation yoo xam ne e daara moo koy waa kuréel yi lëkkale daara yi ñooy ànd ak buur ak borom borom teraanga yi ñu ànd di organiser ay séminaire yoo xam ne incha allah saa su nekk ñu yor daara di gën a xereñ di gën a jekk seen liggéey gën a mën a seetu gone gën a mën a téye daara yi ba nekk di gën a yëwén ci wàllu njàng mi ak ci wàllu lekkin bi kon kooku ba tey problème la daara am na problème ci wàllu logistique te mooy ay jumtuwaay waaye jumtuwaay bi ci jëkk mooy daara ana fu ñu koy samp bokk yi àddina bi réew mi fu ñu natte suuf fu nekk fu ñuy natte suuf fu nekk daañu fa natt place marché natt fa place dispensaire natt fa place fowukaay ak yeneen waaye waroon na gannaaw nga xam ne ab Sénégalais nii la soxlaa jàng alxuraan mënu koo ñàkk jëfandikoo mënu koo ñàkk a xam jaag na fuy natte suuf si natt fa barab boo xam ne yoo xam ne fii daara la tudd jébbal ko waa quartier ba ñu ànd seet ñoom duñ koy defare ba mu jag seen njaboot di fa xamloo yàlla ni nga xam ne mun ñoo ñàkk ba tey mun ñoo ñàkk euh, xam alquran karim